dal leen jàmm seen taxaw seetlu ñëwati nag ginnaaw bañ defee tuuti net li gën a fës ñu baaxee leen ko yéen ami internet Dakar live ay dañ koy tàmbale mbiru journaliste bi Madiambal Diagne ginnaaw daal li muy wax nii yëpp tegu ko fenn te nee na indi ay leeral lan moo taxoon mu doon greffier génn doon journaliste mu ngi xam ne ne Madiambal Diagne eh, xëyul rek doon journaliste waaye dafa doonoon greffier te mu ngi woon foofee ca Kaolack ginnaaw ba mu loolu eh, bàyyi métier greffier euh, dugg ci li nga xam ne mooy liggéeyum journaliste te nee na a euh, ba muy doon journaliste am na ab ndaw boo xam ne ab mineur la woon daf ko porté woon plainte euh, te nee a indi ci ay ci loolu te Pape Ndiaye nee na su ko ma moo taxoon ki nga xam ne mooy ndaw ndaw boobu noonu nekk ab mineur porté woon plainte ki nga xam ne mooy ma jëmbal Diagne Pape Ndiaye nag ne na ki nga xam ne moo nekk journaliste bi di ma jëmal Diagne ginnaaw sortie bi nga xam ne ma jëmal Diagne jotoon na ko def ba tax na journaliste moom tamit génn jàkkaarloo ki nga xam ne mooy ma jëmal Diagne indi ay tuuma ah, teg ko ci kaw ay ndoddam te nee nag su fekkee ne ma jëmal dafa génn weddi loolu moom dina wax ne ah, lan la plainte bi demee ak lu taxoon mineur boobu noonu ak boobu noonu ah, nag coow li mu ngi woy ndax gis nañu sax fu mu ay ces temps ci bruit bi wàññeeku woon na waaye ba tey rek gis nañu ay plainte mu ngi woy di dox ci ñenn ñi nga xam ne dañoo waxoon ci mbir mi ndax lu ci mel ni influenceur bi di Prési ginnaaw ab texte bu mu bindoon ci page Facebook mujj bi mbir mujj na kaa coûté cher ndax moom dasee waxoon xalaatam fi nga xam ne mooy page Facebook di influenceur bi ginnaaw loolu ñu gisoon ne appelante dafa doxoon ci diggante moom ñi nga xam ne moom ne jàpp fu mu nii ki nga xam ne mooy Président Cissé benn influenceur wala keneen ko munti doon waaye tamit gis nañ ne daal lu ci munti am mooy Président Cissé ak ay ñooñoom am na ñoo xam ne jot nañ leen téye foofee ca police te ñu ngi xool mbir mi nan mu ne fanaan nañ seen guddi gu njëkk foofu ñu ngi xamale nag ne ah, Dakar Actu ak leeral ñoo leen porté woon plainte waaye waaye leeral ñoom génn na ñoom ah, ah, nekk ñu ngi def li nga ne mooy Facebook di partager ne dañ ko téye fu mu ne nii foofee ca police te nekkul dara lu ab coow lu doxoon ci diggante Adji Sarr Ousmane Sonko mu waxoon ci xalaatam nag mbir mi nag mujj naa am beneen tournée ndax waa Dakar Actu aussi tamit dafa jotoon ne ak ñoom si benn mbir waa Dakar Actu jot ko porté plainte d'après les informations waaye lu ci amam daal mooy dina leen ko toppal indi leen mbir moomu noonu ci affaire Sweet Beauté ba tey gis nañ ne Famara Sarr magu Adji Sarr bi moom ginnaaw ab sortie bu mu fi defoon ndax ñoom ay góor lañ te ñoom dañoo génn wax mbir mi nu mu demee waxal seen rakk ndax nag ñoom nee kenn du teg pression li nga xam ne moo nekk seen rakk di Adji Sarr Famara daal nee na ñenn ñiy Marie Sagna ñu ngi xamal tamit ci information moom euh, bii ñu mujj génn ci kaso toll na fu nii trente fois mu ci kaso bi boo xoolee euh, euh, plus de trente fois moom nag mujj naa bàyyi dox beeg jël li nga xam ne mooy taxi ndax sénégalais yi ñoo dajale xaalis ne dañ koy fay li nga xam ne mooy bor boobu nga xam ne Guy Marie Sagna saa su nekk koy teewal li nga xam ne mooy sénégalais yi comme ñeneen ci sénégalais ndax mooy cagnotte boobu noonu ñu waxtaanee mbiru procès Ousmane Tounkara foofee ci Amérique ak ginnaaw jàpp gi ko jàpp ab tuuma gi nga xam ne état Sénégal jotoon na ko teg ci kaw ndodam ndax ab sortie bu mu fi jotoon a def tey nag lañ ko ko waaye atte bi mujjul antu ndax nag uh, fu mu ne nii yóbbu nañ atte bi wala nga xam ne le 27 avril lañ koy atte waat yaay gis nañ sénégalais yi taxawoon nañ foofu fi uh, ci Amérique di teewal ki nga xam ne mooy nguuru Sénégal mbir mi nag yóbbu nañ ko le 27 avril waaye tamit ñu wax mbiru Yaxam Mbaye mi nga xam ne jege na président de la République moom nag uh, ginnaaw ab feebar bi ñu fi waxoon yàggul dara moom nañu xam ne évacué nañ ko foofee mujj nañ ko yóbbu fi nga xam ne mooy France pour faju ko ah, ñu koy ñaanal yàlla nag mu teneeg jàmm ndax mbir mi ah, fu mu ne nii nag métti na trop ndax ginnaaw yóbbu nañ ko France ñëwaat continuer li nga xam ne mooy activité mbokk ci ah, yoo xam ne ñoo bokk ci Fatick nga xam ne mooy Sokone ak ñoom nag dañoo am mbiru coowul suuf d'après les informations ñu tibbee ci ñi nga xam ne ñoo dëkk Nioro Alassane benn dëkk nag boo xam ne moo bokk ci Nioro Assantal jégal li nga xam ne mooy Sokone dëkk boobu nag mu ngi tudd Diamaguène ñoom nag ñi nga ne ñooy waa Sokone rawatina li nga xam ne mooy maire Sokone bi dafa bëgg a jël seen suuf ñoom nag ñu koy dànkaafu ne ki nga xam ne mooy maire Sokone bi di Petit Gueye na bàyyi seen suuf sinon ñoom jaral ne nañu teg seen bokk ci Nioro Assantal ñu ngi xam ne ne am na sax ay ndawul buur yi fa jotoon ñëw indi waxtaan ci mbir moom waaye ba tey rek mbir mi leeragul ñoom daal ne ñu ngi jug di artu li nga xam ne moo nekk maire Sokone waaye di artu ñeneen ñi di wax ne nañu bàyyi seen suuf soosu nga xam ne seeni i maam ñoo leen ko bàyyil ñoom nañ dem jëli seen suufu bàyyi ne noonu lañu ko ndaw jàmm gën yooyu nga xam ne bokk ci Nioro Alassane Tall région de Fatick xamle te ñoom nee ne nag teg nañ seen bakkan te duñu bàyyi yoon mu sedd ñuy jël seen suuf di ko salfaane te nee na lu mu leen jaral benn moom jaral na leen fukk ñi ne ñoo ñoo fa ñëw di jël seen suuf te nee nañ mbir mi duñ ko bàyyi mu sedd benn yoon a yi nes tuut ñu bàyyi leen ngeen seetaan vidéo du jour ñu ñëwaat mais oto bi man yow coow li ngay daw de. li may gis ni massage ba de ah. Ah, massage ba waaw léegi lu muy wax yéen xaytu massage gis naa fi ay tonifiant actif. waaw massage en passé war nañ góorgóorlu du mel nii pour Sonko de. <laughs> <laughs> ah yii ci ab problème bu massage boobu. waaw. <laughs> démonstration bii xat comme. jacuzzi comme bu jacuzzi bi. ah bi mooy jacuzzi bi ci may baag bi de ah. kon bi mooy tunisien bi daal parce que góorgóorlu leen bi mooy ban ci. buy bi mooy may baag bi maase waaw parce que góorgóorlu len wutal leen saa may baag buy maase. mbokk yi lii leen fi indiloon seen taxaw seelu ginnaaw bañ leen sante di leen gërëm di leen jox dox daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf fii ci baatu xol bi Dakar Live TV